salaamaaleykum chers internautes maa ngi leen di nuyu di leen ziare dafa am benn euh, jeune fille bu posé question bu amam solo mu ne ma lan moo tax yenn ci góor ñi da ngay gis ni dañuy am problème pour euh, bàyyil seen jabar mu am droit liggéey walla am droit jàng walla am droit am vie am droit tout simplement am vie def lu normal yi nit ñi def lu tax autant de restrictions ci yenn góor ñi nga takk soxna mu nekk xale. nga bëgg ko tëj ci sa kër comme sa propriété durant toute sa vie lan mooy objectif bi en waaw d'après <laughs> ay enquêtes yu ma mënee d'après aussi ay góor yu may interroger sama live d'après ay góor yu may interroger aussi sama live pour comprendre seen manière de penser possessive boobu mën naa gis ne la majeure partie ci góor ñooñu dañu am li nga xamante ni mooy euh, manque de confiance dañu am peur dafa am lu ñuy ragal parce que dañ jàpp jigéen bi ñu tax bopp bi kopp ci nekk ba génnee rek ñu daal koy euh, këf. bu génnee dañuy ñàq seen jabar wala li nga xam ni tey mooy liberté bi jigéen ji di am ñoom dañ ko ragal parce que dañ jàpp ni euh, jigéen bi bu amee vie du leen toppatoo wala du leen déggal wala dootuñu maanaam bànneexu wala boog jëriñu njëriñu bu ñu bëgg donc day nekk jigéen boo xamante ni duñ ko mën a yemale fi ñu bëgg mu yem fa dans le sens que dafa am góor ñoo xam ne dañuy jaawal li nga xam ne tey mooy euh, dañuy jaawal li nga xam ne tey mooy responsabilité obéissance ak moom possession donc nit bi nga xam ne dafa am problème parce que mënul situer sëy bi lan mooy objectif am jabar ji lu tax nga tax ba pare xam ne jabar ji du sa moomeel le fait que nekkul sa moomeel moo tax dafa am vie tey même boo taxoon jabar nga fekk ko amul activité deful dara lu toog ci kër gi le fait que nga di ko gis tey nga gis ni jabar bi kat euh, soxna si même bu dee liggéeyul war na mën am des activités caritatives par exemple des activités épanouissantes par exemple des activités avec ses ses ses sœurs wala ses parents wala avec d'autres tey ngi jàngi alxuraan am programme religieux wala am programme épanouissant boo xam ne dafay delluwaat tamit ci dundam. donc mun naa wax ni mën nañu percevoir largement euh, yenn ci góor ñoo ñu seen problème et que malheureusement euh, dañu bëri ci société bi te li ñuy faral di jël référence mooy suñu maam yi wala jigéenu démb yi wala nangam sangam te dañuy fàttali jamono bu nekk ak la cay xew ceci dit que tey ñu ngi en 2023 bientôt 2024 incha allah yàlla nañu yàlla bàyyi boobu. que jamono dafa changé réalité dafa changé mentalité dafa changé kon tey boo taxee soxna war nga gis ni épanouissement dafa bokk léegi ci li nga xam ne dafay guddal fan dafay tax aussi sa soxna bu kontaanee am vie bu agréable dafa koy transmettre tout simplement dans le cas contraire dund bu stressant yow tamit tu risques d'être stressé parce que xamuñu ne liggéey du rek xaalis mais aussi source d'épanouissement la psychologiquement nit bi bu xamee ne am na njëriñ ci dara dafay yokk li nga xam ne mooy confiance en soi dafay yokk li nga xamante ni tey mooy euh, gëm mu gëm boppam parce que la majeure partie tey si góor ñi la la ñuy wax jigéen ñi nekk femme au foyer mais yow fi dara ah. soo ba benn place ah, lan mooy sa liggéey ci kër gi amoo fi njëriñ donc jigéen boobu day jàpp ni amul njëriñ mais le fait que ne serait muy xëy quelques di dem di ñëw pour ses enfants wala boog pour famille wala pour d'autres choses koy permettre mu am confiance bi nga xam ne moom la ñàkkoon ci boppam Papa kon sa épanouissement soxna li nga xamante ni tay mooy li koy yokku daf lay yokk li koy stressé daf lay stressé tey jigéen ñu bëri ñu ngi wex naqari deret nu mënuñu bëggal seen jëkkër mënuñu ko apporter dara lu positif parce que seen dund neexu leen parce que dund bi ñuy dund dañ koy subir parce que dund bi ñuy dund positiful ci ñoom ndax créé wuñu seen dund comme ndax dañu nekk ñoo xam ne dañuy dund comme ni ko société bi di bëggee malgré ñoom te nit buy dund malgré kooku li ñuy wax naan dafa exister waaye vivre ndax vivre dëgg mooy nga vivre sa vie bi nga xam ni sa choix la te nit ki li muy def tànk amul mooy yàlla amul bàkkaar yu mag borom këram daf ko ci war a soutenir pour mu mën a jëm ci kanam pour mu mën a nekk ki nga xam day heureuse ci àddina ba pare indi bonheur foyer indi bonheur li nga xam ne aussi mooy ses propres enfants et son mari indil bonheur boppam mu nekk aussi jaamu yàlla ndax doomu aadama dund bi ngay dund ci kaw suuf warul nekk lu xat warul nekk naqar warul nekk détresse warul nekk damay am ay nit ñëpp dañu am ay bëgg-bëgg fii yàlla bi mu la sàq nga existe ci nga am ay bëgg-bëgg am ay choix am ay rêve bëgg ko réaliser depuis toute petite ñu ñëpp dañu am ay rêve tey imaginal rêve yooyu tey nga nekk jigéen nga dem ba nekk mag doomu aadama taxaw soit disant que ah dama la taq sa jëkkër laa rek sa rêve yëpp dama koy effacer si sa répertoire yow tu n'as plus droit de rêver tu n'as plus droit de def dara sa l'unique droit existence rek mooy tu maanaam nit ki dem ba gis ni droit wam euh, ci dundam maanaam dundam amatu ci droit am fait maanaam day dund pour keneen parce que dañ la ne société bi lii la bëgg pour nga exister li nga war a nangu pour nga exister nga nekk jigéen ju baax nii nga war a mel donc yow en tant que adulte magum jëmm sa dund ki koy décider mooy sa jëkkër te pourtant sëy du woon loolu sëy duñ buñ koy wax jàppalante la complémentarité la mottalante la nga mottali ma samay rêve yëpp yi nga xam ni dafay bokk ci li may épanouiloo day bokk samay jaamu yàlla day bokk si li bëggal sama xol day bokk si li may màgguloo nga jàppale ma ñu mottalante si loolu mais pas nga tëj ma prison pas à ce nga jël ma nëbb ma jant bi rek may dund yow ci say rêve ci li la neex ci li nga bëgg ci li nga xamante ni tey mooy li ngay li nga jàpp ni looloo jigéen bu idéal kon gis nga loolu dafa emprisonné xolu jigéen ñu bëri jigéen ñu bëri dund nañ ba am 60 ans di regretter seen dund di naqarlu mu nekk loo xam dafa metti nga dégg ñu ne sacrifié naa sama dund ndax yow dama bàyyi lépp lu ma neexoon ndax yow mënatuma woon def dara ndax yow kon loolu suñ ko gisee rek war nañu xam ne euh, neexul ba neexul mais doomu aadama yàlla daf ko bind pour mu exister mais aussi yàlla daf ko bind pour mu réaliser des actes réaliser des rêves réaliser des choses mais pas pour mu ñëw euh, rek nekk ci àddina rek comme figurant boo xamante ni une autre personne décide à sa place ñaata jigéen tey ci saxaabi yaa di ci jigéenu lislaam yi mag yi ñoo réaliser des choses grandes des choses yoo xam ne tey suñ koy wax ci seen cursus da nga yéemu ci yàlla kon du nekk jullit bi moo war a freiné jigéen bi mais góor ñi bëgg a l'islam pour effacer existence wala importance su jigéen bi ci société islamique waaw ndax nekkinu nekkinu jigéenu jullit bi buñ ko cadré teg ko ci ay règles leer dafa war a mën a épanouir dafa war a mën a dund dundam def ci li nga xam ne moom la bëgg ndax du liggéey rek moo fi nekk y a beaucoup si sources d'épanouissement yoo xam ne nit ki bénévolat sax bu ciy def di sentir ni mu ngi jëriñ doomu aadama yi loolu dafa bokk ci lii naatal xolam mais bu fekkente ni nag malheureusement suñu góor ñi seen vision ci àddina mooy jigéen takk nga ko tëj nga ko sa kër li la neex lay def lu la neexul du ko def sëy moom dee loolu rek la ma xam ni fii ak ci kanam tuuti sëy dootul amati parce que jigéen ñi tey fi ñu toll jàng yeewu xam sa diine xam say droit xam li nga xam ne tamit mooy sa euh, importance ci sa existence ci kaw suuf doomu aadama taxaw ne la déedéet boo bëggee ñu ànd il faut que loolu yëpp nga teg ko de côté nga topp ma uniquement ci samay shahawaat maanaam samay bànneex ci li ma neex te teguma ko fenn loolu c'est très égoïste te vision bu metti la tey ci jigéen